ay millions yi doomu aadama ñu ngi ci defaru ci di woy di ci defaru ba saa di taxaw jamonoom it ah ñi yàlla defaloon tawfiq ñu am gisub xol suñu boroom namm ci ñoom ndimbal ak texe ñépp àndoon nañu moom nangul ko ñi nga xam ne ay nit yàlla lañu woon jamonoonteeg moom ñoom ñépp nanguloon cër bi ko suñu borom subhaanahu wa taala jox loolu ku dem ci diiwaan yi nga xam ne boroomi xam-xam di ay wàllu yu def nañ ko ci moom muy ci réew mi di ci gànnaar danga ja gis loo xam ne danga xam ne sëriñ bi cër bi ko suñu boroom jox cër bu rëy la boo xam ne ñi suñ ñi amub cër ci suñu borom ñëpp nanguloon nañ ko ko seedeel ko ko hmm, sëriñ bi nag jamonoom lépp loo xam ne gaar na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xam nañ ne dana ko gaar ndax yonent bi lu ne teg nañ ko ko lu ne wax nañ ko ko waaye amul benn deng deng ci tasaare li ko yàlla yónni ci mboolem xeet wi lu ne mu toggoo ko ca sëriñ bi gis nañ ne am nañu jamonoonteeg moom te xëy na fa mu jëmoon ak aw doxiinam umpoon na leen am ñoo xam ne xam nañ fa jëm waaye nag jubuwu leen lii di tasawuf jubu jubu leen woon am ci ñoo xam ne jimmi lislaam ci boppam moo leen jubuwutoon ba tax ñu doon bëgga gàllankoor lim doon woote ak lim doon yar doomu aadama yi ñoo ñëpp nag kenn ku nekk sëriñ bi dafa am taxawaay bu leer boo xam ne taxaw na ko ci ah, jàmmaarloo ko yow waaye ci anam koo xam ne bu dëppoo li ko cër bi ko suñu borom subhaanahu wa laa jox la mooy ñi nga xam ne xamuñu woon li ko tax a jóg dëgg-dëgg doonte ay mbokkam lañ walla ñoo ñu doonuñu woon ñu ko bañ waaye dañoo xamutoon rek fa mu teg tànkam ñooñu sëriñ bi da wax ak ñoom leen leeral li nga xam ne moo ko tax a jóg ak fi mu jëm gis nañ ci ay tegtal ay xasida yoo xam ne bind na ko xaalu safihun ja ak xaalu yarkan bu ci nekk day leeral ay taxawaayam di leeral jubluwaayam ñi nga xam ne moom jëmmi tasawuf ci boppam moo leen jubuwut ba tax képp ku ci nekk ñuy teg ci yow ay kàddu yu eh, jaaduwut sëriñ bi moom nam jëf leen teeg ñoom rek mooy di leen laabire di leen leeral dëgg-dëggi tasawuf ak njariñ lim am di leen yàdd di sax am lu ko metti ci njariñ lim ëmb ñoom ñu réere ko ba wan ko ginnaaw loolu ko dem ca masaalikul jinaan gis nañ mu jagleel ko ab bunt wax ci lu yaatoo yaatoo yaatu ñi nga xam ne nag moom nguur a leen yittee loon ñu gis ne kat taxawaay bi mu taxaw xëy na mën naa wayafal doole ji ñu amoon ci nit ñi ak bunduxatal gi ñu daan bunduxatal nit ñi ñooñu wëlbatiku di ko rambaaje ak di ko wax wax joo xam ne nekkul gu méngoog lim doon woote ak lim doon jooxe ñoo ñëpp sëriñ bi da doon muñ waaye tax sax ca lam nekkoon rek taxoon koo jóg musta yittewoo nekk di weranteeg xuloog lenn dafa nekkoon ci lim nekkoon rek di mujj sax di leen laabiire ak di leen ñaanal dem banaan wa kullu man chatamani aw laama fa hablahu tawbata wa stislaama fa kullu man asaa dannahu biya faliyaqallib qalbahu ya rabbiya di ñaan boroomam ñi nga xam ne ñoo koy teg ci moom lu jaaduwut wala di koy yedd muy ñaanal yàlla mu de mu mu fexe mu ñu tuub dellusi bàyyi loolu yi ñu doon def di ñaanal képp koo xam ne sa njort daa ñaawoon ci moom suñ borom wëlbati xolam kooku kon dafa yéenewoon woon ñëpp jàmm yée woon yéene woon ñëpp ñu jariñ ñi nga xam ne ñoo doon noonu lislaam nag nga xam ne mooy tubaab yi ak ñi leen di jëmmal nga xam ñoom xeex diine moo leen tax a jóg pexe muñ xam dinañ ko def ci yàq der ci wëlbati ay dëgg ñooñu moom ak luñ ko teg ci ay metit ak luñ ko teg ci ay wax yu jaaduwut lépp dafa wëlbatiku jéggal leen teg bëtam rekk ci li ko taxoon a jóg afawtu anil aadaai turan li wacc man nafaahum li gayri sarmadan lastu adfaaw ñépp dégg ak fi mu jaar ak ñoom mu wëlbatiku jéggal leen daan jàngale daan wax ne ku la wax wax ju ñaaw walla mu jëf la jëf ju ñaaw yow nanga nga ko fayee aw yiw nanga jëmale ci moom aw yiw suñ boroom dana def la mu yëkkati ci lu ñaaw wala lu jaaduwut lool day daal di dellu ci moom wax ne jàmm ak mucc mi ngi nekk ci yéene aw yiw ak wax aw yiw ak jëf aw yiw kon képp koo xam ne yëkkati na lu ñaaw lu jaaduwut yow jëmaleel ci moom aw yiw yéene ko lu baax assalaamatu fi niyati alxayri wa qawlihi wa fialihi wa man wajjaha alxayra ila musiin fa inna alxayra yarjiu ilayhi képp ku yëkkati aw yiw jëmale ko ci koo xam ne moom jëf ju ñaaw wala wax ju ñaaw ca la nekk yow sa yiw day dellusiwaat ci yow rek moo tax buñ gisee sëriñ bi aw doxalinam lépp da ko tënk ci ay ponk ponk ba ci njëkk nga gis mooy gëm yàlla ak wakiirlu ci moom ak doyloo ko ak gëmuk dogalam nga xam ne xam na ne faw suñ boroom moom moo koy aar suñ boroom moo koy sàmm moo taxoon mus sa yittewoo lu may nekk ca lu suñu boroom subhaanahu wa taala bëgg rek ndax ba muy wax ne alimtu yaqinan anna mawlaaya kaana lii wa anna al muqaffa man qalaani yardau loola da ko wóoroon mu am ci yaqiin ci di suñ boroom wax ne wa kaana xaqan alayna nasrul muminin waxoon ne walan yajal allahu lil kaafirina ala al muminina sabila loolu lépp taxal na sëriñ bi delloo lépp boroomam subhaanahu wa taala jublu ko bañ a faale leneen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 إلا الله أشهد أن لا إله إلا على السلام أكبر الله أكبر لا إله إلا الله kon sëriñ bi foofu mu nekkoon ci gëm yàlla waaye jël bëtam teg ko fu kawe lool ba nga xam ne ñu bari ci jamonoom fa lañ doon xool ba ci ay noonam mu tiimoon leen te loolu da ko ñaanoon boroomam tiim noon yi ndax loole moo ko may ñépp wëlbatiku womatu ci ginnaawam ndax dafa waxoon ne wa an akuna ala al aadaai mu'taliyan xatta liyan qaadati ashrarun wa axyaaru waaye sëriñ bi da caa taxawaay boobe mu amal mu am ci boppam moom la it la dénk ak njabootam moom la leen jàngal ku dem ci naxju qadaayil xaaj da nga ci gis muy wax ci lu bari ci loolu naan nanga nga muñ ci bu la ŋàññee wala ñu wax la wax joo xam ne ju ñaaw la bul wuy bul tontonte kenn nanga wax rek la waykat ba waxoon ne walaqad amuru ala la imi bu nii wa fu summa aqulu laa yaani nii mu wax ne wasbir ala sabbi wala tujib ahad wa kun kama qaala al ati adibu walaqat kon dénk ñu moytu ay werante moytu xuloo moytu dàggasante loola it gis nañ ak njabootam yoonoowe rek lañ jaar ci jëllale ak jéggale ak nekk ci li nga xam ne moom la sëriñ bi digle jublu ci seen boroom di liggéey te bañ a dugg ci yoo xam ne amul solo loolu gis nañ ko ci njabootam gépp gis nañ ko ci kii nga xam ne tey bis tey bii moom lañuy màggal di ko fàttaliku muy Cheikh Abdoul Ahad ku ne xam na taxawaayam ci loolu gis nañ ba fi Abdou Diouf ba fi Senghor di tàggoo wax jëm waxoon euh, ci bàyyiloo xel taalibe yi ñu bañ a faale wax yi nga xam ne mooy jóg ndax dafa waxoon ne waruñoo koo faale waruñu ko bàyyi xel ndax ñaar rekk a koy waral ku réere mbirum sëriñ bi xam ne dara xamoo ko ci sëriñ bi walla koo xam ne cër ba ko suñ boroom jox da laa neexut ca ñaar ñooñu kenn matu cee bàyyi xel ndax sëriñ bi moom contrat bi mu am ak suñu boroom am na ko ba noppi ca la doon fàttalee bay di sëñ bi dafa ne lii kaana rabbi wa nabiyu kaana lii bi ma maxaay bi wa sirri saana li wax ne darajat yi taalu walaysa tan xaf walaysa tan xafid wa man naxaa min al wara xafdi xufid dégg dañ ko ba tey am na foo xam ne ba ngay wax ne sëriñ Tuubaa du ku ñuy xulool du ku ñuy xeexal ku ñuy liggéeyal la ku ñuy yaakaar la ku ñuy topp la xam naa ne wax jooju wax ju leer la joo xam ne kon am na lu ñu séq ak sëriñ bi mooy liggéeyal ko yaakaar ko topp ko waaye séqunook sëriñ bi di ko xeexal ak di ko xulool loolu muy waxi Cheikh Abdoul Ahad joo xam ne ñëpp dégg nañ ko Cheikh Mouhamadou Mountakha mii fi nekk ñu koy ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko dégg nañ ay waxam ba tey bokk na ci lim nu wax bu leen geesu bu leen taxaw bu leen déglu lenn loolu nag wax ju leer la joo xam ne kon kenn waru ko faa bàyyi di xalaatal sa bopp di nasal sa bopp loo xam ne wuute naag li sëriñ bi jàngale wuute naag li njabootam bi jàngale dañoo toll jamono joo xam ne kon li war a yitteel di nu war a yitteel war a yitteel taalibe yépp rek mooy teg suñu tànk fi ko sëriñ bi tegoon teg suñu tànk fi mu ñu digaloon teg suñu tànk fi nga xam ne njabootam gi moom la ñuy digal ñu teg fa suñu tànk mooy topp sëriñ bi yaakaar sëriñ bi liggéeyal sëriñ bi ndax jamono ji ñu nekkat ku bëgg a topp ku la wax nga wax ko ku la tooñ nga fayu doo tal la nga war a def doo ca war a nekk ndax tooñ daa yomb léegi jumtukaay yi ñuy mañ a tooñe bari ca kenn ku nekk mën a làqu fi barab wax lu la neex loola nag ñu àggee ci jamono jooju gën a bàyyi xel yoon wi nga xam ne moom lañu sëriñ bi rëddal ñu nekk ca te ku ne xam na ne noonu lislaam waxtu wuñ toll di bëgg a jaxasi jullit ñi bëgg leen néewal doole loole nag lépp loo xam ne day jaxasi jullit yi ak di leen néewal doole loola ku ca nekk nekkoo ci luy dimbale sëriñ bi nekkoo ci luy liggéeyal sëriñ bi ndax sëriñ bi moom boole jullit ñi yëkkati lislaam rek moo ko fi bàyyi woon kon nag bu ñu tollee jamono joo xam ne ñiy bëgg jaxase dañoo bari am jumtukaay yu ñuy jaxasee la am solo mooy kenn ku nekk xam ca la nga war a nekk xam ca la nga war a téye xam ca la nga war a jàpp ndax nag bu ñu nekkee ci am réew moo xam ne eh, dañ fay yaakaar ne suñu boroom def na fa ay xéewal ñi nga xam ne ñoom fu loolu am la ñuy bëgg rekk mooy foofa jaxasoo bañ jaar ca ginnaaw di ko jariñoo jamono ji bu ñu tollee foofu loolu dafa mat a bàyyi xel bu baax a baax am na ñoo xam suñu suñu sañoon jullit ñi duñu am jàmm duñ ko tàll réew mi du am jàmm ba ñoom ñu jaar ca suuf def lañu bëgg a def ah li nga xam ne mooy tiraanga ju suñu boroom defal Sénégal ñu mën koo ja koo jariñoo ñoom ñu jaar ca suuf ba jariñoo ko kon nag ñu bàyyi xel bu baax a baax yi nga xam ne day mel ni ay cokkaas te du am du am njariñ nekk ci li ñu war a nekk dafa doy tontu dafa doy yitte sëriñ bi moom bëggutoon nu am jot te musta wane ak jot lim nu jàngal lim nu junj lim joxoñ mooy nekk ci suñu boroom nekk ci lu am njariñ nekk ci jaamu yàlla nekk ci liggéey bañ a tontonte bañ a xuloo bañ a werante ku ca nekk it ñu bañ laa yittewoo xam ne loole yow boo ca noppee yow yaay def jekk-jekki bàyyi rek tey sax eh, jëf dafa gën a mën a tontu ay wax te li ñu sëriñ bi jàngal mooy jëf jëf joo xam ne ku ne da koy gis ndax ku ne xam na ne boobu yàggutoo rek jàppoon nañ ne walla boog daan nañ bëgg a yàq derub murit yi ci yittewoo wuñ lislaam tey gis nañ li nga xam ne liggéeyal nañ ko lislaam muy ku ne di ci teg ci sa bët loolu dafa doy tontu loolu dafa doy rekk euh, ëpp solo ñuy nekk ci yoo xam ne amul njariñ te it ñu bàyyi xel ne nun sëriñ bi dafa am lum nu joxañ dafa am lum ñu rëddal ñu war caa jaar war koo yittewoo te mooy jëf te bañ a wax te la ngay jëfit nga bañ koo gis kon loolu mooy suñu yoon bi nga xam ne moom lañu sëriñ bi xàllal kon nag loolu dafa mat a bàyyi xel kon daal nañu góor góorlu ci bàyyi xel lépp lu mën a xew lépp lu jamono mën a indi ñu teg suñu bët ci ni sëriñ bi doxale woon njabootam gi doxale noonu di ñu ci woo di ñu ci joxoñ ku am kilifa nag waroo jiitu sa kilifa ndax ku yàlla baaxe nga am kilifa goo xam ne xam na fam teg tànkam xam na fa mu ko war a teg di ko fa teg kooku buñ nekkoo ci jamono nga am kilifa dangay war a nekk rek sa ginnaaw kilifa déglu ndigalam bañ a wut sa yoonu bopp bañ a wut sa xalaati bopp bañ a nasal sa bopp loo xam ne la cay juddoo doo lu muy doon loolu daal mbir la yoo xam ne bëggoon nañ ko fàttali ndax ñàkk teggin yi jóge ci biti am na ci yoo xam ne ay cokkaas rek la jël sax bàyyi xel jërta wàcc saw yoon jërta tax lañ la xamee muy jàmm muy liggéey eh, ñu wàcc nga wàcc ko ndax amul benn njariñ te it am na ñoo xam ne suñu sañoon lañ leen taqal muy ay nit niti ay loola walbatiku ñeneen taq ca te sëriñ bi moom ñëpp xam nañ ne nitu jàmm la murid yi ñëpp xam ne nit jàmm lañ ba fépp ci àdduna bi teg ci seen bët xam ko naw leen ci di ko gëstu waxtu wu nekk ay nit di fi ñëw di seet lu tax suñu borom subhanahu wa taala jàmm ji Sénégal am lan moo ko waral ak nañ def nañ def ba am ko loolu gëstukat yi ñu ngi jóge foo ne di ko gëstu si loolu nag kon buñ ko amee lañu ko may war nañ koo xam te mooy njàngalem Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu loolu ñu ngoy ca sax ca nekk ca ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala def jàmm ci réew mi gën a tàppe xolu jullit yi te tàqal ñu saytaane ak i fexeem ba ñu nekk ci li ñu sëriñ bi bëggal ba mën a am li nga xam ne moom la bëgg ci ñu nun muy texe tey texe ëllëg wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu